responsable yi nekk ci commune bu Mbour ñoom defaraat neen seen taxawaay ngir daal di tëj bunt yëpp ci terrain bi waa opposition bi ngir ñu mën a am lu toll si juróom fukki junni parrain si seen candidat bi ñu samp di Amadou Ba. dem si dëkk bi dugg si marché yi dugg si gaaru ceeb dugg si kër yi pour am ay signature pour notre candidat candidat bi nga xam ne président Macky Sall moo ñu ko joxoñ te mu correspondre nag ak li nga xam ne ñun ñëpp moo nekkoon suñu xol yi mooy le candidat Amadou Ba. Euh, loolu nag mercredi la woon tey samedi ñu def beneen réunion pour gën ko yaatal ànd seeg mag ñi nga xam ne ñoo yor parti yi ak mouvement yi nekk si benn bokk yaakaar pour xool diggante ñetti fan yooyu fan lañ si toll ak ban stratégie lañ war a demee pour li des si euh, maanaam parrainage bi. si ñetti fan yooyu rek gis nañ ne xale yi ak génn biñ génn ak fiñ déggoogum yëpp. amagum nañ ñetti junni ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukki signature donc loolu nag muy loo xam ne lu am solo la mais on a demandé wax nañ leen daal ñoom nañ continuer liggéey bi. jeunesse républicain bu nekk ci département bi nag di woo responsable yëpp ñu booloo nekk benn. ci seen euh, candidat bi di Amadou Ba waaye tamit tegee côté lépp loo xam ne dafa jëm ci lu leen di féewaloo. liñ ci def daal mooy. te jàpp nañ ne le département de Mbour am na lu ñu ko assigné ci parrainage mais ñun euh, dañuy travailler avec les responsables du département de pour liggéey def liggéey bu am solo parce que ku wax parrainage wax jeunesse kon liggéey bi ñu war a def sur jeunesse bi moo koy def te jeunesse bi soññ nañ leen wax nañ leen ne yéen war a def liggéey bi te bu demee incha allah rabi dañ def liggéey bi mu am solo pour remettre ko suñuy responsable politique. objectif boo xamante ni ñu ngi ko def ci juróom fukki junne signature commune bu Mbour amagum na junne ak juróom benn fukk ak juróom fukk ci ay signature ginnaaw ñetti fan yi nga xamante ni commencé neen collecte bi di xaarandi li nga xamante ni moom mooy objectif bi ñu mën koo dab.